ndeysaan abi sifle na Mbe Kombo Ceeb Joal ndeysaan ab koy soogu tuur ndeysaan dafa demoon clandestin moom ceeb ba yàlla def yëgul eh ceeb boobu na ko ndomb ceeb boobu na ko ndomb eh yëgati ceeb ak booy bi ceeb ak booy bi eh eh ceeb ak booy bi yëkkati ba ci kaw doo booy dañoo dëgër de planté wu làmb ceeb yëkkati ceeb daan na ko ceeb bu suwaal daan na ko